di le SEMGA di toutes les forces de défense et de sécurité les autorités civiles et religieuses Nous avons une émission spéciale parce que moment ko la d'habitude naan génn vingt heures wala vingt une heures bu a bu ngeen xoolee xaw na xaw a may partenaires yi may chaque premier partenaire bi mooy ak ak Jamel jox gis a sori affaire daa xaw a bëri nag jus yi ban côté la nekk mooy jus yi EDK oil euh, ja EDK oil ñu leen di gërëm bu ñu jógee ci EDK oil damay dem Saveur d'Asie ak suñu grand grand Thomas Gomis ak équipe yu Saveur d'Asie yëpp bu nekk Patte bi nekk burgiba ak yëpp bu ñu jógee foofu dañuy dem ci Kër Mounass. maam Fatou moom miy joxe caakiri yi pour suñu élément yi. gars dañuy dem ndànk dem xool suñu papa boobu xool duñ koy indil tey nu muy toogee. salaamaaleykum papa. am eh, ko sol. lii sama t la. waaw. dina baax si yow de. Ah. bi tuwee la nga denc ko lii dina baax ci seet bi di nga ci mën a sangu waaye ko waaye voilà waaye kay baax na waaye ndox rek 어, 내가 죽어야 돼. 내가 먼저 못 들어. 내가 먼저 죽었어. 내가 먼저 죽었어. yaa ngi am jàmm waay yaa ngi am naa fi ñëwaat dégg nga. waay. namoon naa leen maa leen di yoo xam foofu lañ commencé ak émission bi yoo xam ne gis nga loolu mooy àdduna doomu aadama dafa sacré bu kenn xeeb kenn bu kenn tuutal kenn bu kenn. bi am ci couvre bi tey mooy heure bi am noonu yaa ngi may dégg. mooy heure bi ne nit waru ci dugg si kër nit muy alkaati muy gendarme bu mandat muy procureur kenn waru ci def sel bi nag dañ koy laal sax parce que nee naa leen yoruñ gaa sel euh, bi moom gënal sel bi sax du di nga premier point bi ni sama grand la Vamos agora. Ele não mudou nada. Tamam. Bundan da öyle bir şey yok. Yapabilir miyim? Bir şey yok. O ne çıkacak yani bir yapmalı. Ne yersin diyor. Ama ne benim ben yersin diye. Hani öyle de tamam. Tamam. Selamun Aleyküm. eh procureur xam nga lii may wax da nga ni xam nga ni kii su ma ko waxoon dara daf may tëj ci kaso bi nii ci erreur agent police Pathé Boye di Pato mbaru police ah. borom couvre-feu ah ok <laughs> waaw lii neexul bi Pato jàpp procureur di ko contrôler lii neexul li wuli naa lii neexul te dara fekkuma ci waaw procureur comme li ñu rek li ñuy sensibiliser mooy wax ji lii la gis nga moom carte professionnelle mu génnee procureur la daf may respecté ma respecté parce que je crois que bu jàppee am moo naan demal jàppal ma indil ma demal defal ma enquête mais tey li ñu yitteel mooy combat bi ñu mën a ñun ñëpp muy procureur baak juge baak may nuyu procureur Ndoye sama xarit ak procureur Aliou Dia ak ñoom procureur Seydi sama xarit procureur ak ñoom maître kii di wax ni c'est ça le combat mooy nañ respecté consignes yi moom procureur la jëlal ma ko masque bi jëlal ma masque bi procureur la bu ko neexoon génn sans masque parce que kenn du ko jàpp mais imagine procureur sax ñëwul génn sans masque takk chaîne de sécurité yàlla li laa wax léegi man citoyen simple bi nga xam ne man du ma procureur du ma magistrat du ma dara du ma atte du ma toog fa ñuy atte nan laa war a def kon gars yi recessé wu bu ngeen génn takk leen seen de sécurité takk leen masque yor leen gel ana gel bi dafa yor nga ko ana bi lii dama nag maa ko ñeme procureur di ko ay gel yooyu kenn xamul dama nag maa ko ci ginnaaw partout partout yàlla waa léegi man bi podo ma jàpp procureur di ko enquête nii procureur mbaa doo ma tëj affaire bi jàlle doo ma tëj ah procureur defal ma

关尔，关尔，三那个。 多少个？三万。多少个？多少个？多少个？三万二。三万。一个一个。好